bon maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di sant yàlla bu baax di leen di nuyu yéen ñi waa di organiser euh, wàllu presse bi ngeen nekk si bon li nga xam ne moom laay njëkk a wax si wàllu foire bi mooy ren daal organisation bi ça c'est bien débuté ça c'est bien débuté bon jaay bi ñi ngi jaay nank nank mais ñii ngi lancé appel pour clients yi ñëw te xam ne bagage yi ñu soxla yëpp am na fii comme genre babouche yi nii yëpp nii euh, comme ni ngeen ko gisee ay création yoo xam ne vraiment euh, mosul woon am si foire yi yu weesu woon daal waaw. bon foire bi ni ñu ko gisee affaire yi nice na bagage yi na xam nga yi ñëw nañu xam Sénégal yi ñëw nañu affaire yi nice quoi xam nga ñu ngi dàq seen wërsëg quoi xam li dafa baax quoi waaw day doxal réew quoi affaire da essence la quoi nice na daal nice na quoi. <laughs> waaw sant yàlla rek foire bi moom nañ ñëw nañ fi exposé seen i bagages mais alhamdulilah quoi ni ñu gisoo moom macha allah quoi mais li problème bi mooy place bi ñoo xaw a seer nag ba pare gisaguñ client daal moo ñu sa xaw a jaaxal fi mu toll nii loolu moom nekk na xam ne jaaxal nañ et puis heure bi ñuy ubbi dafa xaw a gudd naaj ay dix heures demi la ñu ubbi foire bi ba pare tëj bi tam day teel vingt heures gars yi dañuy tëj te loolu arrangé wuñu parce que place yu mel nii nga jël si daf si xaalis bi waxtal bu pare jël ay amoo gis gisoo client amoo client ñu lay teg pression yu métti yooyu métti na trop quoi loolu moom bokk na si nga xam ne ñu ngi koy naqarlu quoi bon ren daal li nga xam ne gën naa ko ràññee si foire ren mooy l'organisation ren gis naa ne organisation euh, foire bi ça c'est bien organisé waaw loolu moo si ëpp solo amul bordel sécurité bi am na bon léegi publicité bi moo des bon nan nan si gën a farlu ñi nga xam ne ñoom ñoo yore wàll boobu noonu bon ñun daal pare nañ indi nañ bagage yëpp pour wàllu euh, le bon euh, d'avoir assisté à ces de de foire parce que aujourd'hui c'est ma énième fois que je suis là mais on a vu que il a certains enfants qui ont découvert aujourd'hui la foire mais je pense que c'est très important parce que non seulement il y a beaucoup de stands où on a exposé tant de choses vraiment ça permet les enfants de rêver et vraiment de, de dans leur avenir. Moi, je ça très important parce qu'on a beaucoup, on a vu beaucoup de monde, beaucoup de monde, et tout le monde est content aujourd'hui.